waaw dama ne man lay waral aw dëkk Rufisque Ouest dama leen mën a xamal mooy dëggal mooy dama ne dama bett Serigne Gueye Mamaya Sène Souleymane Gueye Seck Arouna Bathily ñuy wax pour jaay waa dëkk bi ak kat liñ defoon parce que Serigne Gueye moom mu jógee si réunion benn coalition bu ne ñoom dañu wàllu tëngëj mu wax a waa dëkk bi ne moom si coalition la bokk ma xëy toog dimanche fekk leen digg-dëri roon ñuy waxaale parce Souleymane Cissé moom mooy démarcheur bu Mamaya moom mooy démarche moom Souleymane moom Arona Ba ñooy démarche duñu sax ay conseillers bi du ñu dara ba pare ñooy démarche conseil yi nga xam ne ñoo favorable pour ku alloso wàllu kër yooyu su mel ni Serigne Gueye ñu dem di waxaale ci seen pour pour jaay pour affaire ndax seen intérêt personnel donc loolu nag la ñuy dénoncé li ma leen wax nag c'est clair duñu yaakaar ne ñoom seen i wax yooyu mën na ñoo tax a delloo ginnaaw duñu delloo ginnaaw on a pris des décisions fermes que képp ku bokk suñu xool parce que ñooñu ñun ñoo leen fal ñun population ñun waa Rufisque ñoo leen fal suñu baat lañ yor parce que yoruñu baatu kenn li population bi d'accord nag la ñu war a ànd damay réitéré suñu propos dama ne ñëpp ci bokk si coalition bi nañ fexe bu samedi ñu voté coalition wala fi nekk pour jàppale Darou Niang képp ko si deful tamit dinañ liñ la wax duñu dellu ginnaaw tey duñu dellu ginnaaw ëllëg parce que suñu baat lañ yor ñu xam ne ñun ay menaces wala ay wax Facebook dérangé wuñu intéressé wuñu sax. xam nga lan lañ tontu sax lañ leen tontu wane ñoom li ñuy wax dañuy jéem a nax population di intoxé moo tax ñuy wax xeexuñu xuloo dañuy jéem a créé nag di intoxé parce que nit ki nag boo ko waxee dëgg muy jéem a jaxase opinion bi jéem a jaxase nit ñi ay wax loolu amul dama leen bett ñuy waxaale pour ci baaru dëkk bi di waxaale ko jaay ak tam bi pour seen intérêt personnel loolu nag lañ loolu moo leen métti moo tax ñuy wax man amaluma ci ragal amaluma ci dellu ginnaaw man de amaluma parce que commencé lu dara li mu am tey jii alal maire bi moo ko moo ko may mooy danaa teg pile mu defar ko mu jëlee ko di teg pile ak moom yaa moom yaa defar ko jëlee ko di teg pile di di yem impôt de maire ñu koy bon donc loolu moo ko jëlee comme ni ñu defaruñu loolu moo tax mu bëgg moo tax mu d'accord mel ni mel ni ab tëgma ne braque yooyu gis na bëgg bu benn groupe lobby benn cercle noo leen nax nit ñi pour jéem seen intérêt personnel au détriment des populations sociales loolu amatul si dëkk bi jeex na à partir d'aujourd'hui laa xam ne un défi c'est un am na suñ femme am suñ part dañuy géraax ñoom ñun amul suñu ragal na na leer su boppam leer su bopp ñëpp nañu respecté seen clan ñu respecté suñu clan bu sàmmee nag danga xam wala danga di féeré wax ci jaratul bari quoi loolu laa amal lu ma koy wax.